jërë ngeen jëf mbokk yi ñu seetaan ci xaas TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di kontaan ci. Euh, tewgaat ak uh, suñu papa ji ci jotaay bi ni mel tey nag dañuy waxtaan ci li nga xamante ni mooy wàllub aar bi ndax ku ne xam na ni Mor Diagne yàgg na ci aar wax dëgg yàlla def na fi lu ne uh, buñ ne exemple nag dañ koy jël ci ñoom ñi nga xamante ni ñoo njëkkee uh, ci li nga xamante ni mooy théâtre démb rawatina nag théâtre tey dinañ ci waxtaanee loolu lépp waxtaan ci carrière bi waxtaan ci li nga xamante ne nii ci la dund lu metti ci théâtre bi ak li nga xamante ni dund na ko ci li neex papa maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoog internetu Xaas TV takkal la waaw maa ngi lay fay ah, ah, man daay Kocc laa nekkoon ah, quatre weer bi ma suyee ci eh, dëgg sa jamonoy tey laa nekkoon quatre weer bi ma suyee eh, ci Cheikh ko suyee mooy ñëw ba ñoo ngi doon rek ma ne jamonoy tey laa nekkoon ak ñoom Abou Camara ñoom Pape dembalam Lam Matar Fall Dembi ak Pen ak Jibi Samb bi gaañu ñoom ñëpp ñoo bokkoon nekk fi euh, kii ak Pape Thiam moo doon directeur accessible bi euh, léegi nag 4 euh, VR bi ma joué daare ko laa ko joué te booba ñoo ngi répété maison des parties daaray ko ci jamonoy tey daaray ko ci di répété Médina euh, Cheikh Tidiane Diop ñëw ñëw ci abu abu ni ñu leen arrêté leen boobu fekk nañ ñu ngi répété mu ne arrêté leen am nañu gan ñoo mu ñun ba pare mu ne abu dama am pièce bu ma war a euh, jouer ci dama manqué ay élément ci dama acteur principal bi daal bu fekkee mën nga maa jox mu jaañ mu géel ma ko abu ko amul benn problème daaray Kocc mooy eh, jamono yi tey ñoo ko bokk muy bann suur nga bëgg mu ni ko suur tel laa bëgg eh, après ñoom ñu ñëw répétition bu ñu répétition une semaine rek après ñu door a tourné mm-hmm. ñu répétition une semaine door a dem yoof yoof lañ ko doon tourné ci géeji yoofu googu foofu lañ ko doon tiré foofu laa doon joué kii bi quadrillard bi waaw. ba nga woon lan la maanaam euh, théâtre bi lan la woon. ah te lii ah. euh, da koy tere la waaw <laughs> euh, Habib Diop moo doon bàyyi lii moo doon bàyyi lii da koy tere. boo boo seetaanee kii bi sabar gi ci boori tefes gi waaw ma takk sama ndigg dem ci ñoom leen bàyyi ili day tere lii ko fi tëggeeti daara la ñu bañ booba Mansour ma jaagal moo sabar yi waaw waaw ma jaagal moom moom daaray ko ci la nekkoon moom waaw ak ñoom yaxare dem ñoom ñoom ñépp ci pièce bi la ñu bokkoon ko waaw. ndax euh, ma paree dama dellu de euh, pen moo fa dem moo fa desoon ak Jibi Samb bi gaañu Matar Fall mhm. ñoom ñoo fa desoon mhm. ak euh, ak Orwar Ba mhm. Ndey Ndumbe ak Ndey Jeng ñoom ñoo desoon foofu ci ci daaray Kocc mhm. parce que dañoo aboon abu ni ko damaa bëgg nga abal ma ay élément bu ñu paree ñu ñibbisi mu mu li kon nag dem leen ñoo ngi ñibbisi Cheikh Tidiane Diop ni mi ngi ci dëgg maa ngi ci fen mhm. mu ni ku bëgg a resté daaray Kocc ah, nga ñëw signé fii boobu Moustapha Diop mhm. moo nekk kiyam assistance am euh, léegi nag ma ko man day du ma signé du ma nekk fii parce que da nga ñoo àbboon bu ñu àbbee bi ñu paree dañoo war a delluwaat ci mhm. waaw mhm. ñoom ñu ni ñoom ñoom pen ak jibi sàmb ak ñoom seen yooyu ñoom ñu signé waaw moom ñu dellu ah lu may dem dafa ñëwut àbb ñu mhm. kay kay boo liggéey ba pare kay nga delluwaat sa club bi nga nekkoon waaye nga théâtre démb ak théâtre tey ndax ku ne xam na ne théâtre démb boo ko seetaanee boo yaa ngi mais jamono yi ñu nekk théâtre boo ci gisul vulgaire yaa ngi ciy gis leneen xamante ni lu la yow jàngat am ci moom. Ah, euh, léegi xale yi ñoom defatuñu théâtre téléfilm la ñuy def. téléfilm la ñuy def théâtre da ngay jël sa culture. ñag yi seen culture la ñuy jël. ngay jël seen culture da yeete. te am na sëriñ si dañ koy seetaan mhm. ñëpp dañ koy kilifa yi dañ koy seetaan da nga ko war a rafetal waaye di def théâtre di euh, sàngoo ci néeg ak kii loolu euh, wax dëgg yàlla. tey sama xol yëpp jamono la. seen jamono am na loolu seen jamono jamono loolu duñ ko def.

loo nga xam ne kilifa yi dañ koy seetaan waroo koo def danga ko war a sellal théâtre pour yeete la pour boo nga xamee ne ah yaa ngi nekk sa biir kër ak sa njaboot nga amoon naqar bu bu ñu tegee kaset bi rek naqar boobu yëpp dem na waaw. ah daaray Kocc kat mënu ma la cee wax de daaray Kocc de parce que nekkuma fa woon ah dem ci daaray Kocc nag wax dëgg yàlla loolu comme <laughs> nekk nekkuma ci daaray Kocc daal daaray Kocc mënu ci wax daal. Euh, eh, déedéet jàmm la ñu nekk kay bi ñu demee voyage ba ñëw kay dañoo séparé wu. waaw ah, Cheikh Tidiane def daaray Kocc eh, eh, Abou Camara ñoom ñu jël jamono continué jamono tey amuñu woon benn réeroo amuñu woon benn réeroo wax dëgg yàlla. ah nekkoon bari nañ di dégg wax naa la Abou Camara euh, Maguette Maguette Thiam Ñing Ibrahima Ñing kii Abib Ñing euh, Pape Dembalam Pape Dembalam Ndiaye ak euh, man ak Dembi Fall Momadou Pen moo taxoon bi muy bi muy bi moo ko yóbbu daara koy mais jamono yi teel na nekkoon waaw. ci jigéen ñi fay ñang xooy di ba. xooy ba ak euh, ñoom euh, Rama Thiam Rama Thiam goree ngut noonu goree ngut Rama Thiam ak euh, ñoom Ndeye Ndumbe ñooñu ñëpp foofu lañ nekkoon. moo tax Rama Thiam rek moo ci demul daaray koy a ah, waaw daf ko wone nu mu ko wanee nu ñoo am ak moom jàmm ak salaam te fu ñu ko woo mu mu dem xeebuñu fu ñu ko woo ñu ànd rek moom dem bu ñu amee loo nga xam ne théâtre bu ñëw xam ne wala euh, programme boo nga xam ne kii nañ dañu dañu koy woo ñu ñu ànd ak moom dem ah waaw. kon la woo tey jii tey jii waaw tey la waalo gën ah. <laughs> la waalo gën a aay de. ndax mën nañoo xam euh, pièces nga joué yëpp ban la ci gën euh, bàyyi lii da koy tere ba mu ci gën a marqué. ci jamono yooyu naka ko doon dundee ak njaboot gi ak pecc mi. ah noonu rek bëggal réew mi rek. <laughs> waaw noonu rek laa ko mujj na euh, kii euh, Cheikh Tidiane Diop mhm. mujj na ni bu leen di dem ci xew yi parce que ku leen gis dañuy reetaan mhm. ndeysaan sum benn xarit euh, lokat mhm. fekk booba yaayam gaañu benn xaritam ñu wax Alioune Ndiaye mu ni ma demal yóbbul ma ko ci dëj bi ci euh, lokat fi foofu ci euh, ci rue 22 fi angal gumba safurla angal gumba foofu boobu foofu la la dëkk ma euh, dem jël oto bi dem yóbbu yaay loko kii yaayam ma dem yóbbu ko foofu dama gaare oto bi fekk nit ñaa ngi nii wéreet ci mbedd bi mu ñëw gaare oto bi ubbil ubbil meer bi bunt bi rek ni commencé xaqataay cib dëj ma ñëw bi ma ñëwee ma ne ko grand mu ah, ma ne ko booy dem demal nga jëli sa yaay man mënuma dem pour dem parce que maa ngi ubbi bunt bi rek mais nit commencé di loolu la ñu Cheikh dem nañu campement ngi xool may dem di julli ji jumaa Euh, foofu lañ fa doon joué yi théâtre quoi ñu dem ci tafandaw moo ñu kër kaset yooyu ngay gis yëpp tafandaw moo ñu ko doon teel mi ngi fii Kër Massar euh, noonu dem ci jumaay ji rek sama waay ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp may ñëw rek ñëpp gestu ma taxaw nii rek ñi am ñoo xam dañoo déplacé ñëw dend ak man mu mm-hmm. ne nag léegi daal boo de jumaa jotatee moo fi ma fi ma nekk laay laay julee jëme jëme waaw parce que vraiment yëf yi doy waar quoi. Euh, bu njëkk bu euh, nit balaa moo dëkk ci théâtre dafay rampe da koy jàng ba mokkal ko ba mën ko ba ñëpp xam nañ mën ne ko mais léegi dañu gis ne théâtre boo amul taar. boo jekkul maanaam tegoo cheva euh, rek duñ la daal di jël ci série est du loolu mooy indi erreur yi nga xamante ni moom la ñuy def ci théâtre ah loolu nag ñoom seen seen wàll la ñun daaw ñuy def dañ daan répété répété ba mu mokk ñu door a tourné waaw amuñ rafetaay amul kii bu jëkk daaw ñoo def maquillage ak lu ma la mun la wax loolu dañ ko def dañuy naturel ngay def naturel amul xeesal amul kii naturel rek ngay def ah léegi nag ñu ciy ngi comme ni nga waxee rek ñu ngi dóor ci ay show naturel la xamal ne yooyu waaye ñun booba daaw ñu def loolu ci dañoo déggoon digal waaw waaw boo gisee mag danga koy respecté même sa morom danga koy respecté loolu la waaye nekk naa acteur rek eh, di def ci mbedd yi di xuggali ko ko def lu nekk déedéet di yëg sa bopp déedéet ñun yarewuñ ñu loolu waaw jamono yi tey yaree wuñ ñu lool waaw. tey jii li nga xamante ni nag dund nga ko ci aar bi mu doon loo xamante ni tey boo ko xalaatee dangay am lu la metti sa àdduna. ah ma àddina da wax dëgg yàlla ah, même ah biir metti ni théâtre bi wax dëgg yàlla ku nekk ak sa sa façon defin ku nekk ak sa bëgg-bëgg mm-hmm. waaw ku nekk ak ni ñu la jàngalee. ñun ñu ñuy jàngale yaru teey dund noonu la ñun noonu loolu la ñu koy noonu lañ ñu yareet ñu waaw ñu nag ah, am na bu jëkk ñun amuñu ci dara ñii ci dugg léegi ñoo ci am seeni kër ak seeni oto waaw ku nekk ak sa wërsëg nag waaw man euh, joué naa film cinéma yoo nga xam na ay tubaab lañ ma booleel jóge ba France Moussa Touré moo moo fekk boobu maa ngi jaay livre par kër Difoncé kër Santiam kër kii jàkkaarloo kër sëñ Abdou euh, kii sëñ Mbacke boobu ci kër Difoncé bon ya ñu Abou Camara dem woo ki ñuy wax Philippe ni ko demal wool ma mu jaañ mu ñëw parce que borom film bi dafa am acteur boo nga xam ni ku ko mën a toppandoo moom la bëgg ma daal ñëw laale samay livre daal di ñëw euh, Grand Dakar fekk ña ñëpp ngi ñi yi ñu ñu ngi ko dëpp ni taxaw di ma dama dugg rek yéeg ci kaw tubaab yi ñu ne ay télé day ñu ma benn tubaab boo xam ne ndax mën ngaa def nii tubaab bi def man leen ñu seet bi ma ko defee dañ ne ok stop damaa def ba def lu nga xam ne tubaab bi defu ko booba ñoom ñu ngi loose place d'indépendance sixième étage ñu jëm dem foofu ci seen production bi ñu dem foofu ñu euh, tubaab bi kii euh, waa yi commencé waat ma encore

bi may jógee fii Gambie laa ko jëkk lañ ko jëkk a joué daal avant ñu koy avant ñu koy def kii sa daal Gambie dañ ko fi def wax dëgg yàlla. waaw waaw d'accord waaw ah maa ngi gërëm sama gaay yëpp mboolem ñi may jàppale yëpp maa ngi leen di gërëm surtout Omar commerçant. asalem kooku jàppale na man ginnaaw yàlla ak yonent bi sama diisaayu yaram bi ginnaaw yàlla ak bi moo ko moo ko dindi te moom ko dafay def nit koo nga xam ni bu see koo nga xam ni daal ah néew na doole am na dara lu ko jot bu ko yëgee rek dina dem ba ci moom waxtaan ak moom jàppale ko ci waaw. ah ñi def li nga li ñi def li nga xam ne moo war da ngay jouer sa naturel jouer loo nga xam ne kilifa yi dañ koy seetaan yi normal rek nga di ko jouer mais boo jouer loo nga xam ni itam te gënuwul loolu baaxul waaw parce que say waajur da koy seetaan ay waajur yi keneen dañ koy seetaan loolu dañ ko war a sellal daal waaw waaw maa ngi jóge maa ngi eh, jéggulu nag ci waxtaan bi bu ci dara ñagasee rek ñu jéggal ma ko nit doomu aadama matul ko waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen itam ak sama gaay yi nekk fii toujours maa ngi leen di gërëm ñoom itam wax dëgg yàlla waaw donc euh, merci